Cheikh Bara merci beaucoup. Euh, gis nañ euh, kii di Libération moo ngi xamal ni que kii di Auchan euh, dafa nekk ci mbirum dans les filets du fisc Cheikh Bara. waaw ah yaa ngi pour man comment nga commencé ci bu mu. ah waaw kon d'accord ba tey. <laughs> Cheikh Cheikh Bara am na lu nekk sa bopp bi tey <laughs> hmm. moomu alors ma dooree ko ci yaw rek euh, ci li yéenekaay bii di libération daal di fësal mu ngi hmm. xamal ni que Auchan dans les filets du fisc oui waaw dafa mel euh, ñoom it ñu ngi ci coowalu fiscalité bi defe naa xaw ma si woon lu bëri waaye yàggul dara mhm. euh, maa koy junj parce boobu xaw ma lu ci xew mais da leer ne. Mhm. Euh, fu ñu mën a limee canal lim euh, ñeneen ak ñeneen rawatina entre français entreprise française yi nekk ci biir réew mi. Mhm. da ngay jàpp ne. Euh, noonu ñu leen yombalalee li nga xam ne moom moo di l'impôt bi ñu bañ koo respecté mais. Mhm. fu ñuy waxee Canal Plus. Euh, bu doon versé ay soixante quinze millions. Mhm. au moment où mu war a fay quatre virgule un milliard. waaw euh, ngay dégg cool Woodside nga xam ne fi mu ne ñoom mbir mi ñu ngi ko yóbbu ci kanamu yoon. Mhm. dégg naa euh, waaj a doon daw. ka <laughs> moom premier bett waaw moom moom moom daanaka fi mu ne defal nañ ko bracelet électronique et c'est très normal parce que. Mhm. xam nga ku la yoreel moom kenn ko jàpp ne ko rap fente du am la fayee <laughs> koy bàyyi mu doxantu bu ko defee moom mu xool nu muy régler problème bi. Uh-huh. mais si réew bu sérieux lañ nekkoon. Mhm. parce que Auchan boobu man xaw ma si woon dara mais dafa ma leeroon ne Auchan boo saytoo ba ci biir fiscalité du lu ñuy respecté. Mhm. parce que loolu mooy réalité bi moo nekkoon réalité bi au Sénégal. soo nekkee entreprise euh, rawatina entreprise française da ngay mhm. nekk ci biir réew mi. di def ay bénéfice yu extraordinaire ñu defal la euh, daanakay ay exonération li nga war a fay sax doo ko respecté donc loolu moom pour man c'est un problème et bu ñu saytoo benn par benn ci entreprise yi fi nekk ñu ñu ci jot a cité bëri nañu actuellement daanaka ñoom ñëpp dañoo nekk ci coowal fiscalité et loolu ça montre nettement que musuñoo respecter Sénégal musuñoo respecter fiscalité parce que ces mêmes entreprises là ñoom boo demee seen ay réew wala yeneen réew ci biir sous-région bi dañuy respecte fiscalité bi foofu mm-hmm. mais au Sénégal fii moom mooy euh, dëkk boo xam ne nii benn OF signature moo ko jiite ku mu neex nga ñëw tu te fais mais des milliards yu bëree bëree bëree bëri te li nga war a verser muy lu tuuti par rapport ak li nga xam ne moom nga gañ nga ne ko mhm. doo ko verser réew mi donc loolu moom fulaak fayda moom moo koy réglé Auchan mhm. déjà Euh, on se rappelle ci front yi nga xamante ne ni tey jii frappe par exemple. Mhm. Euh, tàmbali woon na ko di xeex parce que dañ ñoo fekk tey euh, Auchan ñëw troublé même si Sénégalais yu bëri mën nañ jàpp ne wéy moo gën a yomb. soo fa demee jënd ji walooy demee noonu mais Auchan. dafa ñëw fekk tey commerce Sénégal mu bouleversé li nga xam ne moom moo di commerce boobu ba daanaka lu ci bëri ñu ci bëri en tout cas am ci ay jafe-jafe. Mhm. loolu c'est très bien peut-être ñoom ni ñu leen ko yombalee lay tey est-ce que. commerçant sénégalais bi moom produit bi mu bëgg noonu la mbir yi di yombee ci moom. Mhm. état du Sénégal tey imaginez au moment où euh, Auchan bi nekk fi mais respecté wul lu jëm ci wàllu fiscalité pendant ce temps la am na entreprise sénégalaise yoo xamante ne maanaam ay sénégalais ñoom ñoo ko moom. Mhm. jiite ko di ko doxal ñu leen di teg ay pression daanaka ci wàllu fiscalité ba euh, ñu nekk si ay jafe-jafe et pendant ce temps Auchan boobu noonu moom day liggéey jël li mu war a fay ci lempo begg la nga xam ne moom la war a am ci bénéfice def ko ci boppam. Mm-hmm. est-ce kooku tey mën na concurrence ak ki nga xamante ne nii déjà ci côté moyen moyen yu tolloowul et ñun. on doit même réfléchir si naka la ñu mën a euh, téyelee suñu bopp suñu commerce su réew parce que loolu déjà si côté emploi daf lay dimbali mais dafa lay jàppale ci lu bëri mhm. aujourd'hui ni nga bëggee am tey ji euh, benn benn benn souveraineté alimentaire bëgg a teg sa ay industrie bëgg a dem vers la transformation loolu soo ko defee mun a ñàkk nga teg aujourd'hui benn chaîne mhm. xeetu Auchan boo xamante nii lu ñu moomal suñu bopp lay doon suñu ay produits ñu mën di ko fa exposer mhm. sénégalais di dem di fa jënd ji mais en tout cas li leer ba leer mooy lu mel ni Auchan moom ça ne profite pas manque de respect bi nga xam ne nii doxandeem yi ñëw au Sénégal am yàgg nañ ko am ci réew mi mhm. suñu ay njiit nekk aussi ñoo xamante ne c'est des complexes ñoom ñoo daan jàpp ci mais Woodside depuis kañ la nekk au Sénégal lan moo tax ñu bàyyi ba ren ñuy soog a lijjanti ne Woodside ndek daawul woon fay euh, fiscalité bi correctement. Mhm. Canal Plus depuis plus de vingt ans. Canal Plus nekk ci biir réew mi ndeke Canal Plus autorisation sax amuñu ko dañoo ñëw rek ñun daal réew mi moom da ngay ñëw rek def lu la neex. Mhm. ñëw fi di fi def des bénéfices mais. Canal Plus ba mu fi nekkee ba li mu fi liggéey ci milliards da ngaa mën a xam nu mu toll. Mhm. d'ailleurs maa ngi yenn client di may interpeller bi wax ci loolu sax ne waxuma la sax ay fiscalité mais cher gim cher ak affaire yi niñ niñ koy niñ koy niñ koy niñ koy lijjantee. Mhm. dem ba investir tey jii ci yu bëri yoo xamante ne tey ñun en tant que sénégalais ñoo ci waroon investir lu mel ni cinéma bi ak yeneen ak yeneen. Mhm. donc tey entreprise bu ñu nekkee au Sénégal. ñu dem ba tey jii nii en deux mille vingt quatre. Mhm. ñu naan ñu noonu ndeke ñoom ba ñu fi nekkee ba léegi daaw ñu woon versé quatre virgule un milliard dañ daan versé euh, soixante quinze millions xoolal différence boobu noonu. waaw c'est trop. wut nekk ci biir réew mi ay ati ati ati at ñu ñëw. ren jii di ñu soo a wax nañu Woodside kat moom euh, fi mu ne amel nañu temps ci ay milliards ba daanaka mbir mi mi ngi ci kanamu yoon de cette même manière Auchan ta bëri na. te ñoom ñoo yóbbuwaate ci yoon booy lim doo fi jóge mhm. Sénégal la ñu wul woon Sénégal moo nekkoon benn terre boo xam ne dangay ñëw rek indi sa xaalis investir buub li nga am ak law askan am yëpp buub yóbbaale. Mhm. mais ba si banque yi. yeneen ak yeneen bëri na ci biir réew mi maanaam Sénégal daal amul dara loo xam ne daan ko fi daan ku ci nekk da nga ñëw def lu la neex rawatina ñoo jógee France léegi nag doomu réewu Sénégal yi maa ngi joxe keroog exemple bi nga gis doomu Sénégal yoo xamante ne ni tey mais intérêt wu étranger moom moo rey seen business bi ñu amoon ci biir réew mi. mais mm-hmm. loolu aussi euh, il faut que ce nouveau régime taxaw si bu baax a baax ba ñu mel noonu ñu mu leen taxaw parce que. soo toogee tey ñu naan la ñenn ci entreprise sénégalaise ñu ngi leen di teg euh, ñu imposer à que ñu fay li nga xam ne moom moo di fiscalité bi. Mhm. nga gestu gis Woodside di dund la même chose. Euh, de même que entreprise u euh, carte kat boobu noonu ak yeneen ak yeneen daf lay wan ne maanaam lii euh, dafa jublu rek moo tax gis nga loo gis dafay am logique. tey mhm. quand on te parle de rationalisation nga geesu gis ne kat fiscalité bi ñu ngi koy respecté di nga war a mën a gëm ne lii kat rationalisation lañ ci jublu. mais bu mhm. fekkoon ne tey dañoo wax ay rationalisation nga geesu gis ne voilà euh, lu ñuy ñàkk ci wàllu fiscalité d'ailleurs. yàggul dara maa ngi xoolaat euh, benn page ci biir programme bi foo xam ne ñu ngi fa doon wax lu jëm ci wàllu rationalisation mais daanaka lii di nekk di xew nii actuellement loolu la woon. Mhm. mooy dépenses yi dinañ fexe ba wàññi ko. mais dinañu fexe aussi ba fiscalité ñu respecté ko ci biir réew mi ba doon wax ne réew mi bu ñu doon xool rek ñu doon euh, ñàkk ci fiscalité kenn xamul nu mu toll ci ay milliards. Mhm. donc ñaar yooyu soo ko boolee mooy wàññi dépenses yu inutiles benn deuxièmement la la daan raw ci ay milliards yu bari Auchan ñëw mu am lu la war a fay récemment Guy Marius Sagna mi ngi ko doon dénoncé euh, benn entreprise bu nekkoon ci réew mi war a fay euh, ay milliards yu bëri ci ci ci ci fiscalité mm-hmm. mais ñu ñu xaw ma dañ ko koo wàññil xaw ma dañ ko koo xaajal ñen trois parties. ñu jékki-jékki ne ko bon da ngay verser temps après le liste c'est ba ñu gis euh, le député d'ailleurs le président Bassirou Diomaye fay si boppam. Mm-hmm. moom moo interpellé jamono boobu mi ngi mi ngi Cap Manuel. waaw interpellé Guy Marius Sagna pour ne ko na dem lijjanti euh, mbir moom ba pare bind lettre écrite euh, ci mbir yooyu donc mën nañu jàpp ne président moom xam na ce qui se passe. même mm-hmm. laataa muy nekk président du Sénégal. donc loolu moom c'est une bonne chose et tey jii milliards yooyu ñuy lim yëpp rek. ku ci nekk euh, canal plus bi may wax à de deux mille dina commencer fay correctement quatre virgule un milliards yi nga xam ne moom la war a fay. Mm-hmm. yeneen entreprises yi li ñu yoreel ak yeneen ak yeneen mais loolu suñ ko dajalee mën na servir si euh, ñu fàtt trou yu bëri. mais ce qui moom mooy nekkuñu woon ci réew bu sérieux loolu rek laa siy njëkk a jàngal. Mm-hmm, mm-hmm. très bien alors euh, Cheikh Bara. naka nga jàngatee coowalu Auchan bi. waaw lii day day day wane day day firndeel que ni tey euh, régime bi fi nekk ñoom. Mhm. nekkuñu rek di di di attaquer li nga xam ni moom mooy les entreprises nationales les entreprises nationales parce que euh, tey dama les entreprises nationale parce que dama jàpp ni tey euh, bu fekkente ni yenn ci entreprise de presse defal nañ leen redressement fiscal. Mhm. ñuy yuuxu xam nga mooy li ñuy faral di wax rek.